ba mu yóbbu ñu vers l' émergence bi nga xam ni moom la def ci biir plan Sénégal émergent mais opposition ñoom amuñu programme opposition boo xoolee lu bare la ñuy wax euh, ay ay chimère la maanaam ay wax loo xam ni euh, correspondre ak la réalité du terrain situation bi ñu nekk ci crise àdduna bi doo leen dëgg sax ñu wax ci du wax waxuñ du ñu wax ci Covid bi du wax ci guerre bi am entre l'Ukraine et la Russie nga xam ni dafa indil ay jafe-jafe réew mi dañuy wax rek loo xam ni dara amul bu mën a amee ñu ni président Macky Sall la bu naaj bi tàngee ñu ni président Macky Sall la bu ngelawee ñu ni président Macky Sall la voilà donc yooyu mooy seen programme te loolu plus ñuy avancer plus nit ñi di gën a xam ni loolu correspondre à la réalité donc ñun dinañu waxtaan ak nit ñi wax leen li xew ci àddina wax leen li xew ci jamono pour que ñu gën a soudé wu autour du président Macky Sall te bañ a déglu waxu kasaw-kasaw yi nga xam ni moom la opposition di leen wax chaque jour loolu nag incha allah daañu continuer comme niñ ko daan defee di waxtaan ak askan bi sur ce plan là donc engagement détermination tey le gën a dëggu tey la gën fort que démb te ëllëg lay gën fort que tey